Bamba Diop ñoo ngi lay nuyu ci di la siyaare Diop ci di la ñaanal fu mu toll li si lay doxati bi moom ren moom def nga lépp suñu xol sedd na guy ci yow li nga bëgg sa dëkk maam bi yaa ko xam yàlla na na la ko yàlla fay ci barkeb sëñ yàlla ci kaw ca kanam rek yokk lool ci barke suñu Tuubaa man de li ma ciy wax bëriwul xanaa di nuyu ak di sant di sant sama yaay Anta Diop di ko sant di sant sama nijaay Moustapha Diop di leen sant yàlla nañ gudd fan yàlla nañ fekkee lépp seen njaboot gi ci barke Serigne Baara Mbacke barke Serigne ñaan Diop yaa Anta maa ngi lay ñaanal li nga liggéey ci sama kër nijaay gi yàlla nañ la ko fay ci sa ci sa gone yii yàlla na nga dund bañ di la weer ak weri yaa Anta yëg ngeen ma safoo ma faale ma. man dong du ma jaam ci famille Kër Sëñ Ñaan waaye fi ngeen ma teg maa ngi leen di ñaanal ci yàlla ak sëriñ ñaan Diop sama maam fa ngeen bëgg a yegg yàlla na ngeen fa yàlla yeggale. Bamba Diop mi maa ngi koy ñaanal lii mu tàmbali ci ëttu maamam bii yàlla nañ koy dégg ni ni déggee soorooru Touba bi ci barke sëriñ ñaan Diop Bamba fa nga bëgg a yegg yaak say mag ak say rak yàlla na leen fa sa borom yeggale yaak Ceerno Diop ak Xaadim li ma leen di ñaanal ak bamb fu ngeen bëgg a yegg yàlla na ngeen fa yegg ci seen ëttu maam bi man daal li may ñaan daal moom li nga sémb ci sa ëttu maam bi daal yàlla na nga ko yeggale ci barke Serigne Touba. képp ko sa ñaan Diop foo bëgg na la fa yàlla yeggale yàlla na nga yàgg ak sa baay bi yàgg ak gi Diop njaga man soxna Diop maa la fiy sant kër Cheikh gi gi waaw loo def tey yàlla na ko gën a mën déwén yàlla na la yàlla defal barke. yal na la yàlla defal barke nga mujj ci nit ñi li nga bëgg yal na la ko yàlla defal barkam njóobeen bi yàlla na la toog ci yaat barkam sëñ ñaan Jóob. asalaamaaleykum bisimilah rahmaani rahiim ñu sant yàlla bu baax sant sëriñ Tuubaa di julli si yónnante bi di sant Seydina Muhammad di ñaan suñ barke maam sëñ ñaan Jóob ñuy ñaanal Bamba Jóob di ñaanal sëñ Moustapha Jóob mi nga xam ne mooy suñ kilifa. ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal waa kër seen ñaan gépp ndax fii mooy suñu pencum maam kon li may wax xale yi rek ngi samay rak waaye di sama rakk yu am jom loolof njaari wax nag olof njaari def ne booy bay danga koy commencé sa wewu tànk moo tax bi baam ba waxee lii ñu kontaan si lool ànd seeg moom ànd seeg mbégte ñëw ba fii nga xam ne moo suñu ëttum maam di ko fi defe fekk fi soxna bind suñu mag ak soxna Fatou Moudou Ndiaye bu na sëñ daam jaara moom it di suñu mag di ñaanal waa kër sëñ Moustapha Diop roqaya ñu fekk leen fi ñoom itam leen ñaanal bu baax a baax a baax ñii ñaanal nag Bàmba li mu sumb ci péncu maam nii yal na ko yàlla jàppale ak Seydina Muhammad ak liggéeyum ndeyam ak barke baayam ba li mu sumb mu egg ko ci jàmm ak salaam ba ñëpp xaj si du ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di nuyu sëriñ mustafaa Diop mi nga xam ne mooy xalifa kër Serigne Niane Diop te tey jii ñu nekk fii ci peñum ko Serigne Niane ne fii ci biir këram ñu ngi koy ñaan mooy mu yàgg fi lool te yàgg taxaw jotaay kër Serigne bi ak mboole comme que àndal barke Serigne Touba noonu lañ ko kilifa diine ak kilifa aada di nuyu waa kër Serigne Niane nga xam ne ñoom lañu fekk si ñu ko ci mel ne soxna Bintu Thierno ak sëñ Ibra Anta ak soxna Fatima Dun mi nga xam ne moom lañu fi fekk si ak soxna Issa Diop di nuyu sëñ Bamba Diop mi nga xam ne ndogo yi tey ji moo ko organisé def ko fii ci pincum kër maawa mi muy pencum kër sëriñ ñaan jom mii ñu ko ci ñaanal jàmm di ko ci ñaanal sutura di ko ci ñaanal saxaatu daaray ni ndax daanaka mooy ngeen gi ñaan di ko ñaanal yéen a jëm ci am ba def mu def ko fii nii yal na ci am lu kawe njortam barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Mustafa di ko ñaanal ñëpp rek di ko ñaanal maanaam lii muy def jëpp yéen a jëm ci am yàlla ko sama borom mottali ba fépp fu ñu tuddati képp kuy def ndogu tudd ko fa yàlla man na ko te yàlla na ko yàlla defal am na yéene ji ñu koy ñaanal bu baax a baax ren jéem ko tàmbali yàlla na ko defal téeméeri at yu doog a tàmbali ren ci barke Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko wax ne wax dëgg yàlla waa kër si ñaan gi mu ko defal muy ay mbokkam fi mu ko tàmbalee kontaan nañ ndax génn nañ wuy si ko ñu ngi koy ñaanal daal lépp lu mu ciy séntu yàlla na ko sama defal lu kawe njortam kenn kenn ku nekk lay sa soxla bu ñëwee bàyyi mu soxla dina dama tële dina dara day waaxal tànkam bi te mënoon na lu fi xew ne ndaw mel na ñëpp taxaw na waaye daal Moustapha danoo bëgg yërëm mu yiir mu yàlla na ko fi yàlla yéen ko Serigne Touba bàyyil ba ci kanami kanami kanami kanam ci barke borom Touba te yàlla defal ko ak yërëku wér la man soxna Bintu Diop maa ngi sant ñëpp di sant ak Diop sama rakk bu baax bi bu fàtte ceeb ñëpp a baax ñëpp baax ñëpp baax ñëpp a bëgg bëgg naa ñëpp yal na leen ko sëriñ ñaan bi nag nekk benn ànd benn te yàgg ko loolu te yàgg ak liggéeyal sëriñ ñaan bi li muy taxawal dañ ko ci ñaanal yàlla defal ko ci ndam ndax li ko war li nu war ci dëkk bi moo ko war ci dëkk bi doomi dëkk bi la di sëtub dëkk bi satub sëriñ bu defaree leen maa ngi def dara ci kër sëñ loolu war na ko ndax ni mu nu waree nun ñii fi ne noonu la ko waree kon nag mënun lu may di ko ñaanal fi mu jëm yàlla na yàlla jëm ca kanam daal waaw yàlla na jëm ca kanam ba leen bëgg lépp ci moom it nu am doomi réew mi rek fu fi doom ne mooy taxaw koñ ba mu ba mu dëkk kon nag bu taxaw koñam ma nga jëm ca kanam te ca kanam rek la jëmin nag incha allah baax na salaamaaleykum. bismillaahi ni yéen a loo xamante ne si lu ma wumpoon la ndax nekk nanu ci réew mi lépp dix-sept ans wala quinze loolu mas a wax maa ngi moom it luy jëmee kër sa ñaan kanam la mas ma mas di wax ba ci li mujjoon a man moo di Touba li muy rëy rëy rëy rëy rëy même bëgguma fa kër kër sa ñaan laa bëgg kër loolu la ma kon foofu daje woon nañ fi bëgg-bëgg ndax man fu ma mën a ko gënal fu ma a fanaan rek kër sa ma ko gënal kon ndokk ba mu xamee ne kër la bokk di xalaat lu yokk kër di yëngu ci lu yokk kër sa ñaan moom maa ngi koy garanteel ne lu mu yë lu mu yëkkati ci kër dana yëkkati ku moom ci ëppam lu ko sut lu mu ci lu ci yëkkati rek lu mu fi def dana man lu ko ëpp ndax ñi ko bëgg a def te yàlla joxu leen capacité man ko dafa bari te nit ki ku ko defal la mu bëggoon a def te mënu ko mu ñaanal la nga yàgg maa ngi koy ñaanal ci barke maamum sa ñaan lii muy yëkkati yàlla na ci am ndam képp koo ca xamante ne si yéene nga ko ko yàlla nga bokk ak moom ndam loolee te it na góorgóorlu bu baax ca xam ne lii muy def mooy li mu war a def naka jekk nag loolu laa leen doon naan wax waxtaan maa ngi ñoom bu baax a baax daanañ ma déglu it ci li ma leen naan wax ndax mosuma leen a wax dara loo xam ne sama intérêt bopp tax ma di leen ko wax te du ko wax kenn ko yàlla bind ku yàlla la sama intérêt bopp lu may wax kër sa ñaan tax may wax lu ma am te nar ma koo bokk kër sa ñaan ko am loolu laa daan ñaan moom it li muy wax mooy lii ma wax rek jàkka ji mooy priorité bu jàkka ji paree léppam dana pare bu soobee sëñ Tuubaa bu jàkka ji paree mel ni sa ñaan bëgg dana mel ni mu bëgg moom itam loolu moom garante naa ko gannaaw loolu yéen ñii mu fi yebal sant naa leen cant gi it ci Baye Moustapha laa koy commencé ndax moonu jur ñun ñëpp mooy sama kilifa sama baay la mooy sama sëriñ bu ma nee woon tey jii bul fanaane te Daaru Jóob doon ma fa sama tànk kon mooy sunu kilifa ñun ñëpp ndax mooy borom kër sa ñaan fii ne lu waaye def kër sa ñaan moom nga koy def ndax moo fi sa ñaan. yéen ñii di ay doom ak i jarbaa tamit yàqalu leen ko diggam ak kër sa ñaan ndax yéen a fi ëpp lu ngeen fi ñëw te lu ngeen ko fi wax mën na ko gëm ndax yéen a fi bari tànk bu ngeen ko fi waxoon benn négatif dana ko gëm bu ngeen ko fi waxee dana ko gëm kon yéen it jërë ngeen jëf sëñ Bamba daal maa ngi koy xamal ne ko lii mu taxawal muy mouvement bii muy def yàlla ko ci yàlla sëñ bi may ndam mu yóbbu ko fi mu ko bëgg a yóbbu am ci lim ci bëgg am kër sa am ci liñ ci bëgg am ci barke sëñ Diop ñaan jërë ngeen jëf sant